wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la hawla wala quwwata illa billahi al taam loolu lay wax nag ne tilka rusulu yooyele yonent faddal naa gënal nañ baadahum ñenn ca ñoom ala baadin ci ñenn am na ci ñoo xam ne wulul azmi lañ tudd min ar rusul ñooy ñi ëpp doole wala ñi yàlla gën a jox kattan ci nubuwa ak risaala ñooña juróom lañ ki dem rek dégg naa ku ci wax ci rajo bi naan aadama laag diw ak diw ak diw or aadama bokk ci noox moo ci bokk te tuddul kooka far kon ñooñu ni ko alquran tuddee muy ulul azmi yàlla def na yéen minka wa min nooxin wa ibrahim wa muusa wa isa ñooñu ñooy ulul azmi yonent yooyu nag moo tax mu ne gënal naa ñenn ñi ci ñenn ñi ndax am na ulul azmi min hum nekk na ci yonent yi man koo xam ne kallama waxee na ko laahu yàlla muy tontu ni ki Muusa wa rafaa yëkkati na it baadahum leen na ci ñoom darajaati na ay daraja comme noonu nga xam ne noonu la yëkkatee sayiduna alayhi salaatu wasalaam naka noona wa aateenaa jox nañu isa it ibnu maryam albayinaat lay yu bir mu di ay kawtéef yoo xam ne yu leer la wa ayyadanaahu dëgëral nañ ko bi ruuxil qudus yi ci jibril mu di ruuxu gu sell gi walaw shaa bu sooboon laahu yàlla maqtatala du wuute alladina ni nga xam ne min baadihim ñëw nañ ci seen gannaaw bu sooboon yàlla mu sóob ñépp ci wenn yoon duñu wuuteeti min baadi ma jaathum gannaaw bu dikkalee leen albayinaat ay kawtéef ak i aaya yoo xam ne yu leer la walakin waaye ixtilafa wuute nañu fa minhum nekk na ci nit ñi man aamana ku gëm na wa minhum nekk na ci ñoom it man kafara ku weddi na loolu la yàlla bëgg walaw shaa bu sooboon laahu yàlla maqtataloo kon duñu wuute nag ci loolu ñépp dañuy gëm walakin allaha yàlla nag yafaal day def maa yurid lu mu nam def lu la neex yàlla rek la jikk waaye ku duwut yàlla moom sañoo waroo def lu la neex dana am lu la neex te waroo ko def nga bàyyi ko yàlla nag moom yafalu ma yuridu yafalu ma yuridu mooy ku mu neex mu dimbali la nga gëm ku mu neex it mu sànnig la ndëm ci sa xol nga weddi ku neexit nga weddi ba yàgg mu sànni ci yow leer nga dellu si gannaaw ku mu neexit gëm nga nga amoon mu sànni la ak lëndëm nga delluwaat gannaaw kon yàlla moom yafalu ma yurit mu bàyyi loolu ñëw ci xiir nit ñi ci dundale ci yoonu yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran gaa yi gëm la ñuy wax waaye ñi gëm alkitaabul munazzal lañ jubli ci amanu anfiqu dundale leen mimma ci lañu la nga xam ne razaqnaakum wërsëgal lañ leen ko ndax am bu yàlla laajoon nga joxe lépp li nga am doo ko mën te kon da nga bañ waaye lenn na ci loola min li tabiidi mimma razaqnaakum te loolu na nga ko def léegi ndax àddina boo ci nekkee jëfal balaa alaaxira atelier la pour liggéey pour yóbbaale àllaaxira nag nanguwul bagage accompagné waaye fret la nangu da ngay jiital balaa ngay dem waaye bu dem jotee nag doo yóbbu dara loolu moo tax mu ne min qabli an yaatiya njëkk bay dikk yow mun bés boo xam ne su ñëwee la bayun déet jaay dara fii ci bés ba ñu di ko jënd nga mën kaa jëriñoo wala xullatun du caageen ak xaritoo wala ak mbëggeel wala bëgg kenn rek ba sopp ko tee topp yàlla di la jëriñ dara wala shafaatun du caageen am rammu du jege jëriñ kenn dara donte yonent bi yàlla jagleel na ko am rammu it nee na shafaati li ahlil kabairi min ummati sama xeet ñi ci bari bàkkaar ba seen yu bon ëpp seen yu baax waaye quand même gëm nañ yàlla def nañ dara ci lu baax ñooñu la ramb ma di jëm ci ñoom waaye ku defut loolu nag kooku jaay du la jëriñ xarit du la jëriñ ramb ma du la jëriñ dara nee na wal kaafiroona yéefér ya hum ñoom addalimuun ñoo di way tooñ yi bàyyi na loolu mu ñëw ci la ñuy tuddee ayatul kursi ndax li ci yàlla tudd kursiyom bi yàlla tudd askane nañ ko arash askane ko kursi yi wala askane na ko boppam dugul ne na nga ko foogee nag wante buur bu nekk dana am lal dana am gàngunaay gu muy toog donte buur bi bokkul ak ñooñe it te na muy nekkee ci arash bokkut ak ni ci keneen di nekkee na muy nekkee ci kursi yi bokkul ak ni nit di nekkee ci gàngunaay waxoon nañ ci gannaaw ne Malik radiyallahu an imaamu daaril hijrati ba ko benn taalibe ne ko Malik lan mooy maana istawa ala al arshi Malik ne ko al istiwaawu maalumun bi lugal arabiya ku ne xam na luy istawa ci arab te arab nga ni man amaa nag kaysiye bi comment nan la yàlla nekkee ca arash loolu nag moom lu ñu réere la laaj ko nag biddaa la ndax gisuma fenn ci téere xadis fuñ ne yonente yi yonente bi saaba yi mas nañ koo laaj alkayfiya wala ma mas nañ koo laaj istiwa alal arsh kon nag ku ko laaj bidaa nga def mu ne al istiwaawu maalumun wal kayfiyatu majhulun wa sualu anhu bidaa daal dina gaa yi faxrijuhu anni génne leen ko fi léegi tey mu fitnaal ma bëgg maa wax loo lu waxuwut boo demee ci arasu doomu aadama loolay ñeneen ñiy toppatoo yooyee ñoo koy xam ñu ne nit boo gisee nit dem bay woote ne moom mooy yàlla te fekk waxu ko yàllaa ko wax xanaa daa déggee kàddu gi ci moom ñu ne an lan ngay wax ne yàlla am na ko te gisoo ko ci nit mu ne arashu doomu aadama yàlla am na guddi ak bëccëg ñu ne nit ki am na ko su jubloog yow ma ngi ci bëccëg bu la wanee gannaaw ma ngi ci guddi naka noonu penku sow ndeyjoor càmmoñ nit ki am na kanam gannaaw ak ndeyjoor ak càmmoñ naka noona yàlla am na arash nit am na lal yàlla am na kursi yi nit am na toogukaay yàlla bind na ndox mu neex ak mu naqari nit loolu am na ko gémmiñam ndox mi day neex mooy xikma ci bu mosee dara bu safee mu xam bu weexee mu xam su gémmiñ melu toon noonu du mën a xam loolu mu ne waaye bëtam nag ndox mi ci nekk dafa weex dafa am xorom soo ko toppoon nag arachu doomu aadama comme ni ko ki ñu doon jàngal daan waxee day yaatu lool loolu yépp ci wax lu jëm ci kursi yu wante buur nee na ci aaya bi le am na ay mufassiroona yoo xam ne dañuy xaabaabal ci njëriñi aaya bi wax ci lu bare bare bari ba loola mën na labal leneen waaye xadis yi bari na ci moom ñun dinañ ci tànn rek li Ali ibn Abi Talib wax ne déggoon naa yonent bi toog taxaw ci kaw minbar bi di wax ne ku jàng ayatul kursi gannaaw julik farata gu nekk dara du ko mën a tere dugg aljana lu muy dee mu ne booba rek lan ca indi ca ngëneelam ya waaye dafa yaatu ndax yàlla ci aaya bi mu ngi naan amul kenn ku ñu jaamu ci dëgg lu mooy moom yàlla moo dund dundeewul bakkan comme nun yàlla moo sax saxeewul niñ fi saxee ndax ñu niñ fi saxee am na fu muy yem yàlla du gëmmantu te du nelaw loola la wuteeg mbindeef Moussa alayhi salaatu wasalaam mu ne yàlla moo ndax da nga nelaw ay yàlla ne ko Moussa pour ma tontu la dey li may def daal moo di ne dama lay dénk fukki nen say ñaari loxo yi bu ci nekk na téye juróomi nen ma dénk la ko Moussa bu ko teg fenn téyel rek ba ma laaj la ko Moussa téye nag loxo bu ne juróomi nen rek Moussa yendoo na ko fanaanoo na ko cëlëg sa mu yendoo ko fanaanoo ko guddig ñaareel ba njël mu gëmmantu loxo yi lox mu ne rajax am yu daanu toj mu ne tiret na yàlla la nga ma dénkoon toj na mu ne ko looloo ma teree nelaw man kon yàlla du gëmmantu du nelaw te itam ramm ramm mooy ña demoon safara ñu yeble fa woo leen ñu génn dem aljann kamam njëkk nañ dugg safara waaye ramum yonent bi ñëw ci ñoom yàllaa ngi bëgg a xamle fii nag ne bul seet benn boroom xam-xam wala boroom may wala koo yaakaaree ci yàlla nga daw jëm làqu ci moom naan ndax comme ulamaaw yi dañuy ramm ma làqu ci kii ndax bu ëllëgee mu ramm ma mu bëgg laa xamal ne kii war a ramm ramm mi jógewut ci moom yàllaa koy yónni ne demal génnee diw ak diw mu nekkoon te dawal jëm ci yàlla mi yónnee ndax mën ngaa daw jëm ci kenn yaakaar ne danañ ko yónni mu ramm fekk duñ ko yónni te amul kenn kenn ku mën a ramm lu may ci ndigalal yàlla yàlla moo xam li ci seen kanam ak seen gannaaw te yàlla moom doo xam ci moom dara lu may li ko neex gis nga gàngu naayam gi di kursiyu rëyaayam ëpp na asamaan ak suuf waaye li muy rëy rëy yépp nag wattu ko ak denc ko ñoŋal ko loola daanaka diisu ko sonalu ko ne yàlla moomu moo kawe waaye kawe wut nag ci béréb kawe wut ci makkaan ci liye moo màgg te màggewul aw yaram itam xamuñ ci yàlla dara lu may lim leen xamal ci moom yent yàlla Moussa xaba xamam dafa bari woon ba mu yaakaar ne moo fi raw mu taxaw ne bani Israël ñépp maa ci maa fi raw ma seesut a gis ci kaw suuf tey koo xam ne man Moussa rawuma la ba daje ba jeexee mu ñibbi boroom ne ko wax yu ko ne ko wax nga lu ëpp nag xam-xam da nga ko waroon a delloo ci yàlla wane ne yàlla dong moo xam waaye comme yaa ngi ko delloo si ci yow te xam-xam yépp yàllaa ko yor ku ca am moo la ci sedd tuuti rek Moussa danaa la wan ne am na ku la gën a xam te mu ngi ci kaw suuf mu ne mu yàlla fu may gisee kooku comme nam xale ñëwee ci suratul kahf yi mu ne ko demal demal te yóbbaale jën wuñ wàjje muy sa yobbal ak mburu na nga jëm ca boori mer Noire côté tu- côté tur turc jóge Cham muy Palestine nga jëm boori Intakiya balaa nga àgg moos da nga daje ki la ëpp xam-xam Moussa jël Yooshua ibn Nun ne ko nañ dem ñu wàjj ay jën jox ko mu yenu ak mburu mi ñuy dem ci yoon ba ñu sonnee noppalu jóg di demaat rek ñu fàtte fa jën wu bu ñu demee ba ca kanam nag mu ne ko sawaay atina ghadaana laqad laqina min safarina hada nasaban waa ji ne ko e fàtte naa jën wu seytaane ma ko fàtteloo comme ni mu ñëwee ci suratul kaafi insha allah mu ne fàtte nga ko mu ne waaw Moussa ne foofa lan jëm nag sama borom ne na woon fii jën wi réeree ci may seet fa la nekk nañ dellu ñu delluwaat ba fa jën wa fa mu réeree mu ne ci xeer wi lañ toogoon fii la la bàyyi jën wi ñu ne jën wi wattu na ak li muy liñ ko wàjj yëpp ba mu ñor wattu na ba dugg ci géej gi muy xool watit wi booba dañ bëgg mu xool géej gi di ko xool ba mu dugg ci géej gi mu xool seet benn waaye ngi ferenkalaayu ci géej gi Moussa ne waa jàng kee lañ ma wax dal di ko nuyu waa ji ne ko marhaban Moussa ibn Imran mu ne kaaw téef ku la xamal ne man may Moussa ibn Imran mu ne ki la fi yebal moo ma xamal ne yow a Moussa ne man day ñëw naa dal di yow soo ñibbil yow man li ma doon seet dalika ma kunna nabghi ki ma doon seet a ngi nii gis naa ko mu ne Moussa luy say tànk ah mu ne man de dama bëgg rek an tuallimani mimma ulimta rushdan dama bëgg nga jàngal ma ci li nga xam am njub ki ñu doon jàngal ne kon ndeke samratul ilmi ar-rushdu ndax kii waxut ne mimma uli- mimma alimta ilman waaye mimma ulimta rushdan ndax buy xam-xamu kese ba ànd tëkkam njub mu ne du baax Moussa nag fi mu jaar ak xadir ni mu guddee te xale ñëw ci suratul kaafi insha allah ba mu jeexee ñuy tàggoo xadir ne ko sa waay sama xam-xam bi ma xam bi nga di ko wërsi ak la nga xam yow Moussa ba yéemoon sa bopp ci bani Israël suñ ko boolee ak xam-xamu ñeneen ñi fi nekkut soo ko nattee ci xam-xamu yàlla ba du ci wàññi dara lu may picc malee taxaw ci dex gi sëpp gémmiñam naan jóg la mu wàññiwul ci dex gi rek li ma xam man ak yow ak ñeneen ñépp noonu lay mel ci xam-xamu yàlla kon wala yuhituuna bi shay'in min ilmi loolu lay wax ne allahu yàlla laa ilaha déet benn buur ilahul mooy moom amul benn buur allahu mooy ismu zaati wala nga ne mooy ismul jalaala jëmm yàlla ji allahu la tudd wenn tur wi rekk la tudd nag li ci des yépp ay melokaanam la waaye allahu daal moo di turam léegi nag leneen loo ci indi rek aw melokaanam illa huwa lu mooy moom kooku maqaama la ci arifuuna yi boo xam ne bu sori la ñoom seeni maqaama ñett yi danga ko gis fii laa ilaha illa ana laa ilaha illa anta laa ilaha illa hu huwa nag moo ci gën a sori ndax kii naan laa ilaha illa ant xëy na ma ngi ci péey bi yàlla bay janoog péey bi bay wax naan laa ilaha illa ant waaye kii jeex tàkk moom day gis ne genn jëmm fi nekk laa ilaha illa ana wante ki mat nag dafay génn ca loola jóge ci jamu delsi ci farqu nga xam ne bay borom maqaam ak pay ba péem moom mu nekk nit te xam pay ba mooy baqaau baadal fana looloy ila huwa alxayu yàlla moo dund alqayoomu moo sax laa taaxuduhu du jàpp ko sinatun gëmmantu wala nawmun du caageen nelaw loxoo ñeel na ko ci moomeel maa fi samawat li ci asmaan wa maa fi l ard li ci suuf man daa ladi ana kan mooy ki nga xam ne yashfau day rammu indahu fa yàlla illa bi idnihi lu muy ci ndigalam kooku amut amut kenn ku am daraja ak wilaaya wala maqaama ba yowmal qiyaam nga mën a rammu ay nit yóbbu leen aljanna lu muy ci ndigalal yàlla yàlla kay mooy seet ne diw wooyil diw cay safara diw jénne jil diw kon nag amul kenn kuy def yàlla rek kay def mooy joxe ndigal ci lool man de alladi yashwa indahu illa bi izni yàlla mi yaalamu dana xam maa bayna aydihim la fa seen kanam oma xalfoo mag rek seen gannaaw nit ñi nag ak mbindeef yi wala yuxiituuna duñu léem bi cheyin dara min ilmihi ci xam-xamam léem mooy xam ba wër illaa bi macha allah mooy lu ko neex rek ngeen di xam ci moom wasiya ab pana kursi yoo gàngu naayam nga samawati asamaan yi wala ard ak suuf wala ya udduhu du diis ko du soxlaal ko du ko diis xifzuhuma wattu arash ak kursi wala wattu asamaan yi wa huwa yàlla al ali yàlla mooy aji kawe kawewut ci béréb al azim mooy aji màgg màggewut aw yaram laa ikraa fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy alxajazi day wax ne aaya bi gannaaw gàddaay ba mu ab ba mu am ñetti at ci la wàcc mu ne loola day wane ne dootuñ forcé kenn kenn kenn mu dugg ci diine ji ndax itam lay xewoon ca xare badar ak xare uxud final jullit ñi ba ñu fayu loola comme fayu nañ ba banañ jullit ñi léegi ñu am seen liberté kon dootuñu xare dugal kenn ci diine ci force wala naan dugal wala joxel galag gannaaw bu ñu ubbee misra muy égypte gannaaw bu ñu ubbee lenn pays ci jihaar ak jaasi ngir bëggoon a yóbbu wooteb yonent bi mu àgg fa kon léegi réew mu ñu ubbi rek dañ naan dugg leen ci lislaam ñu ne mënuñ ko duñ basum diine ñu ne kon joxe leen impôt te nekk ci li ngeen ne loolu moo tax muy wax loola alxajaasi ne na abal xuseyn mu nga mu ngi bokkoon ci bani salim ibnu awf dafa amoon ñaari doomam ñoo dem nekk ay nasaraan loolu nag fekk yónnee guñ yónent bi ba ñu yónnee yónent bi ba mu dem madina seen baay nekk ci lislaam nag ñoom nag ñu nekk seen nasaraan gi ba léegi seen baay nag téye leen neen duma leen bàyyi mukk lu may bata ngeen àndeek man ba ci yonent bi dugg ci lislaam ñoom ñu ne ko ñun duñ dem ci lislaam suñ diine jii daal ci la ñuy nekk xanaa kon xuloo nañu léegi nag seen baay porte leen pelent maanaam daal mu tawat leen mu kalaame leen ci yonent bi ba mu ñëwee mu ne yow mi yàlla yónni ñu dey maa leen jur samay doom lañu dañoo nekk ay nasaraan man nag bëgguma ñu nekk nasaraan dama bëgg ñu fekk si ma ci lislaam bi ma nekk ndax it bëgguma lu jógee ci man di dem safara ayat xulu baade yi annaara lu bàyyee ko ci man nar a dugg safara may seetaan man loolu neexuma alquran wàcc nag ne mu kàllaf lañ suñu bëggee ñu fekk si la ci lislaam suñu bëggut nga bàyyi leen moo tax mu ne laa ikraha déet benn xeeti forcé muy gunda xutaal fi diini di nekk ci diini ji léegi daal daawal islaamiya leer na xat tabayyana bir na rushdu njub min al xay ci réer fa man yakfur ku weddina bi taaxuuti ci seytaane ak iblis wa yuminu mu gëm billaahi ci yàlla na nga xamle rek ne kooka faqad istamsaka jàppana bil urwati ci buum ga alwusqa gu dee aji dëgër lan fi saama deet ak dagg deet ak reweñ ci kook dagg laa ci buum googu wallahu yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam allahu yàlla waliyu lazina amanu gis nga yàlla nee na jullit ñi daal man yàlla maay seen kilifa jullit ñépp man yàlla maay seen kilifa maana maa méngoo seeni mbir ba jubal leen di leen jox xéewal ëllëg wante yéefar yi nag man yàlla méngoo ma seen mbir dama leen a bàyyi ci sama sama maandu rek moo tax mu ne allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum mu génnee leen min adlimaati ci lëndëm ak réer ila nuuri yem ci leer ak gëm yàlla wala dina ñi nga xam ne kafaro weddi na ñoom it am nañ kilifa waaye awliyaawum seen kilifa ga attaaguut mooy iblis mooy seytaane yi yuxrijoonam ñoo leen di génnee min nuuri ci leer ak imaan ila dulimaat jëm ci lëndëm ak réer ulaayika ñooy asxaabu naar ñooy boromi safar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiyaa foofale mu ñëw ci woru kàttan ak nguur mën na téye nit ba mu woru gis nga namruut ibnu kanaan moo jamono woon teeyoon ak ibrahim namruut nag dafa woru woon lool demoon na ba yaakaar ne moom mooy yàlla woote woon nag yàlla ndax dafa woo ibrahima ne ko ibrahima kuy sa yàlla mu ne ko ki la bind yàlla jooju mooy sama yàlla mu ne ibrahima man may yàlla sa baay de nangu na ne may yàllam sa yaay nangu ko yow nag lu tax nangu woo ba mu dem ibrahima baayam di ko gëdd naan ko arraxibun anta an aliyati ya ibrahim ndax dangaa bëgg bañ sama yàlla yi nag ah ibrahima nag ne comme dëkk bi nii la xatee kii mooy sama wayjur mënuma koo tontu lu bon te lim nekk di ndëng kon naa génn dëkk bii inni zahibun ila rabbi sayahdini mu dal di gàddaay ulamaaw yi nee na daaya bu ne képp ku woote jëm ci yàlla def ci diine lu rëy fa nga juddoo doo fa nekk fekk feneen ngay nekk ñu ne loolu hijra la ñu ne xikma la moo tax ibrahima ne inni daayibun ila rabbi gis nga Moussa ni mu gàddaayee jógee Égypte keneen ak keneen ñoom ñépp foog ñu def hijra loola yu baree ca nekk ibrahima nag ba mu nekkee ca loola Namrud dal di ko invité mu ñëw mu ne ko léegi nañ discuter ci xam-xam ibrahima kuy sa yàlla ibrahima ne ko sama yàlla de mooy rey di dekkal mu ne accam yomb na maay buur fii woo ñaari nit rey kii bàyyi kii ne rey naa kii dundal naa kii bàyyi naa ko mu dund ndax maay man maay yàlla maa moom dundam su ma neexoon mu dee ba naa ko kon jox naa ko dund kii rey naa ko ibrahima ne waaw kon li sama yàlla man mën nga ko waaye am na leneen lu yàlla sama yàlla man doo ko man mu ne ko lu mu doon mu ne sama yàlla mooy fenkal jant bi ci penku yow it nanga ko fenkal ci sowu ma gis ah foofu nag Ibrahima Ibrahima dal di gañe waa ji nag mënatul dem nit ki soo ko ee ba amul argument xam nga nu muy defam dalay saaga rek wala mu xeex ak yow koo gis muy discuter ak nit ba yàgg mu saaga rek mooy jeexal na dënnam xat na amatut benn argument bu muy tontu saaga rek ci des wala xeex Namrood nag jeexal na mu daal di nekkoon kii dama koy lakk moo koy lakk muy dund mu daal di taal lu aw sawaraam nee nañu taal nañ ko bee picc mu naaw tiim safara way loo sori sori da ngay daanu ci safara ñoo Ibrahima nag jàpp ko indi nag police bi jàpp ko indi yeew ko ne dañ koy sànni ci safara si ba ñu ko jëlee daal iblis ne da ngeen koy mbëq ñu mbëq ko ci mbëq gi sànni ko ci safara sa fi ñu ko sànnee balaa moo àgg ci safara sa jibril dab ko ne sa borom ne loo bëgg waaye ibrahima ku xam yàlla mu ne li ma bëgg day fekkee ci yow mii lay jógee soxlawuma bu fekkee ci yàlla lay jóge nag xam gi mu xam sama mbir doy na ma jarul ma di ko laaj ndax xam na sama borom moom sama digg ak moom dara fi doxut ba may wax li ma bëgg suñu benn magu daara ma son na mu wax ne ah doom fanweeri at yii de ñaanu ma fi yàlla dara ma ne ko lu tax mu ne rus ko rek xam ne li ma nekk yëpp xam na ko kooku maqaa bu kawe la dem ci yàlla ba ñaanatoo ko dara ndax xam nga ne xam na xam na li nga nekkee ibrahima ne jibril bu fekkee lu ma bëgg ci yow lay jóge déedéet soxlawuma buy ci yàlla nag ilmuhu bi xaali yi yëg fi an sual yi xam gi mu xam sama mbir doy na du ma ko wax dara booba la pay bu sell bi yëngatu nag ne ko dal dina yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim na mu xale ñëw ca kanam nee na safara seddal te musalal ibrahim mu door ne cipp ca safara wa yu ñu doon jàngal ne baatab salaaman bu ca amul woon kon dana sedd ba sedd baa koy mujj gaañ waaye def ne bardan wa salaaman ibrahim foofu la jaaroon ak namrud alquran nag bëgg laa xamal woru kattan nguur xam-xam mën na laa wor ba nga teg sa bopp foofu foo yëggu moo tax mu ne alam tara ndax xamuloo mu ne loolu istifaam taajub la dafay laajte waaye day yéemuwaale mbir mu yéemu la ila lazi jëm ci ngóor si nga xam ne xaaja dagg sant naag ibrahim fi rabbi yi ci borom an ataahu ba jox na ko law yàlla al mulka nguur rek luy sabab si muy dàgg sant ibrahima ci yàlla ndax yàllaa ko jox nguur mu bew is qaala ba waxee ibrahim ne rabbi sama borom day lasi mooy ki nga xam ne yox yi day dundal wa yumitu muy rey qaala wax na mu rod ne ana man it ux yi mën na maa dundal wa umitu may rey qaala wax ibrahima ne fay na laa yàlla day yaati day indi bi shamsi jant bi min al mashriqi ci penku faati yow it indil bi yaa ci jant bi min al maghribi ci sow ah foofu nag fa buyita gëlëm loof weddem loo lasi ki nga xam ne kafara weddina wa wallaahu yàlla moom laa yahdi di jubal alqawma nit ña azzaalimiin ñi di way tooñ am na beneen mbir itam boo xam ne mën nga kaa tuddee waru waaye mën nga kaa tuddee xisab jéema wane rek ne yàlla mën naa dekkal ku dee xam nga jullit yi ñi ci gëm yàlla bari na waaye ñi ci gëm dekki bariwut tax na ba alquran sonne na lool mbiram dekki léeboo na ko nu nekk xissaa ko nu nekk rek ndax ñu gëm ne yàlla dina dekkal képp ku dee maa xalqukum wala baasukum illa ka nafsin waxida Usayru yahud yi dañ ne doomu yàlla la almasih nasaraan yi ne doomu yàlla la moo tax bu sëri ne ñun de suñu yenent du yàlla du doomu yàlla soo koy tëgg daal lu la neex lu la neex nga wax ko waaye bul àgg ci yàlla wala doomu yàlla da ma daathu nasara fi nabiyihim waxkum bima chita madhan fihi waxtakim banu Israël ba ñu nekkee Sham muy Palestine dañu amoon benn xeex ak buuru Irak buuru Babil xam nga Irak Babylone yi ñoo fa nekk du ñoon duñu arab pire les Babiliques ñoo fa dëkkoon al Babiliyun wala Ashuriyun wala Kildaniyun gannaaw yi la arab yi ñëw jaxasoo ak ñoom waaye Babil Ibrahima fa la jóge woon du ñu woon ay arab amoon na fa buur bu ñu naan Buxtanasar ñu naan ko Buxtanasar Babil moom nag moo yeble woon ñu xeex si ak Sham xeex si ak bani Israël ba ñu ñëwee nag xeex bi metti woon na lool metti ñu faagagal bani Israël rey leen rey goo xam ne gu yées la moo tax boo demee ca kanam ci Isra fi yàlla di wax naan la tufsidunna fil ardi maratay ñu ne yoon wu jëkk wi Buxtanasar Babil moo leen faagaagal yoonu ñaareel wi Tataar ak Maxuul Tataar ak Maxuul moom la ñenn ñi tuddee Yaajuuj ak Maajuuj muy mongol nga xam ne ñu ngi jóge woon ci awasatu Asia bañ leen reyee na rey gu metti googu ñenn ñi daw ñi ñu jàpp leen leen jàppee nag yóbbu leen Baabil ba ñu dëkkee foofu jamono di dox bani Israël ya demoon benn gune gu jigéen a ngi ci doomi buur bi jël ko yàlla dogal ba buuru baabil bi dee doomam ji falu jabaram ci bani Israël la bokk kooku nag am ak moom ay doom ñu jërbaati bani Israël ñu wax seen baay ne sama xeetu yaay wi Palestine rek lañ bëgg te nga bay leen ñu dellu Sham te nga goreel leen ku ci koo ci defoon jàmm nga bàyyi ko mu ne comme am na ci jabar léegi dafa bëgg goreel bani Israël waaye loolu sotteegut Useyru nag ba ñu leen di jàppam njaam di yóbbu koo moom xalel la fukkeet ak ñeent fukkeet ak juróom la toll waaye jotoon na jàng seen téere bi nga xam ne mooy tawraat ba man ko Useyru nag yàlla yónni ko ne ko yónni naa la waaye na nga dellu Palestine nga dekkal Sham mu dal di waxaale ak benn jula ne na ko luye mbaam wala mu abal ko kooku may ko mbaam mi mu woo jabar ji ba mu ñëw mu ne ko maa ngi dellu Palestine ndax dañ ne naa dekkal Sham mu ne ko ma ndax yàlla moo lay yónni mu ne waaw nu ko kon loolu juboo nañ ci mu dindi jaaroom solal ndaw si mu yore benn xaadima benn mbindaan bu ñaan ashtar mu toog ak jabar ji waxtaan ak ñoom ak yeneen doomam ca njël rek mu dajeeg waaje ca gannaaw dëkk ba mu jox ko mbaam ma mu war rek dem Useyru dem na Sham mu ñëw di xool yaxu yéeli doomu aadama yi kaa ngi bopp yi bani Israël ni leen Buxtanasar defoon xol bi tàng lool mu gis na seen teen bi bari na ndox ba ndox mi xëbb na kenn mënatu koo naan mu dem ci seen tool ya tooli raisin ya ma nga baree baree bari meññ te kenn du ko sàkk teen buñ ko rootatul mu yuqóol ndox ma day xëbb ko biirin mu àtt la mu gis seen garabi figg yi muy gën gi ma ngi meññ kenn du ko sàkk bu daanoo ba nëpp ba wow rek beneen ñëw meññaat ci kaw mu sàkk ci gën gi ci figg bi jël ci raisin bi lu bari nal ko def ko mu dig naanam mu def ci mbuusam wékk ko nag ci garab gi yeew mbaam mi walbati ko nag di xool dëkk bi ni mu lëwee ni mu garab yi sëqee yoon yi sax amatul mu ne man man de la ñu sant ne naa dekkal file ah bi dëkk de xaw ma naka la ko yàlla dekkalee gannaaw bu mu dee te baytul xasid bi yépp yàlla nga ko bëgg wan ne mën naa dekkal ku dee mu taxaw ba yàgg mu ne ah kuntu mi le xaaral ma dugg ci làqatu tabax yépp toj nañ ndax tàngaay bi ba ngoon daal ma door a génn mu yeew mbaam mi denc figg bi wekk mbuusam li muy naan dugg ci xunt mi rek dal di dee dee na téeméeri at bee jamono soppeeku Buxtanasar dee na doomam falu na takk na ci bani Israyil ba am ca doom doom jooja kee dee na mujj na nekk buuru baabil te ndeyam bokk ci bani Israyil kooku xëy rek ne bani Israyil da ngeen a bëgg ñibbi ñibbi leen am ngeen liberté ab yahud Israyil yi fu mu nekk rek foofa la bëgg a dem ñoom ñëpp ñu takk seeni bagage rek ñibbi ba ñu ñëwee ci dëkk bi ku ne xam ni sa kër baay wala sa kër maam mag ñi waxal leen ku nekk sañ caat ñu defaraat dëkk bi defaraat tool yi Ousseynou moom kenn gisu ko mu nga ca àll ba rek ca tool ya dee na fa ba yàgg rek ngelaw upp rek mu daal di dekki jóg taxaw fudd naa xaw naa fee nelaw de xam naa ne bëccëg bi yépp maa ngi fi wala génn wala bëccëg yépp maa ngi fiy nelaw yàlla ne ko Ousseynou du bés du génn wala bés téeméeri at dee nga ko fii dama laa bëgg a xamal ne yàlla mën naa dekkal ku dee dëkk bi deewoon dekkal naa ko yow nag xoolal sa raisin bi nga doon naan soppeekuwul sax foroxut téeméeri at foroxut xoolal sa figg bi saxewut wowul foroxut xam ne yàlla mooy téye jamono xam nga bu ko neexoon mu téye temps bi nga yàgg fi lool te jant du so bu montre yi demee it mu téye temps bi rek mu mel na mel noonu la yàlla beneen domaine la mel ak temps su ko su ko neexee rek mu téye ko mu ne ko léegi nag xoolal sa mbaam mi mbaam mi dee na ba nekk ay yéex ay yéex rek fi des mu ne xoolal ni may dekkalee mbaam mi ngelaw upp rek yéex yi dal di composé wu yàlla def ci aw yàpp ak kawar rek mbaam mi jóg taxaw mu téye ci nopp bi dal di ne yàlla ne yow laa bëgg a def nga nekk kéemaan gannaaw bi ma la wanee kéemaan nga gis ko yow ci sa bopp kéemaan nga demal ci dëkk bi Ousseynou dem ci dëkk bi di laajte këram ana këru Ousseynou ñu ne Ousseynou ah kooku day gën nañ koo dégg wante ay doomam ñu ngi fi ñu tegtal ko këri doom yi Ousseynou ñëw na ci kër gi nuyoo dugg ñu ne kan la mu ne man Ousseynou ñépp a jóg taxaw Ousseynou doom ji ne ko man de sama bàyyi moo doon Ousseynou mu ne man la yaay ji génn màggat lool xaadima bi mbinaan mi génn màggat lool xam nga téeméeri at pilis dam leen bàyyi woon ci at Ousseynou ci ñeent fukki atam yi ñu ko yónnee woon ci la toll nga am ñeent fukki at yàlla téye temps ci moom Ousseynou doomam a ngi nii am na téeméeri at Ousseynou moom toll ci ñeent fukki at jabaraam am téeméer ak ñaar fukk ak mbindaanam moom mu toll ci ñeent fukki at doomam yi di am téeméeri at mag ko lool te mu mag leen aarifa nañ ne nañ kenn magut kenn ñëpp fi ñëwandoor rek xanaa ay tëjëliyaat la rek mu ngi noonu ñoom ñoo ko mag waaye moo leen mag ndax moo leen jur ba pare ñu mag ko yàlla nañ ne kéemaan googu laa bëgg ñu xam ne kon mën naa dekkal ku dee loolu lay nettali ne aw kellezi walla nga xalaat ci xisab ki nga xam ne mara romb woon na ala xaritin ci dëkk muy Usayru waye dëkk ba xaawiyatun ma nga daanu ala urushiha ca téegam ma xëdd ba sax daanu na terrasse gi yépp daanu na qaala mu ne ana yuxyi nan lay dundalee haasi dëkk bi laahu yàlla baada mawtiha gannaaw ak deyam yàlla ne ma won la fa amaatahu mu rey ko laahu yàlla miata amin téeméeri at su ma baasahu topp mu dekkal ko qaala mu ne ko waaw kam labista ñaata nga fi tëdd qaala mu ne ko labistu sax naa fi yow man benn bés aw baada yowmin wala genn wala bés qaala wax buur ne bal lu fi nekk labista sax nga miata amin téeméeri at fandur seetal nag ila taamika sa ñam wi wa sharaabika ak sa naan gi lam yatasannah soppeekuwul wandur seetal ila ximaarika sa mbaam mi wala na jaalaka dañ la bëgg def ayatin ngay kaaw téef dinaa si ñeel nit ñi wandur seetal ila isaami jëm ci yaxi mbaam mi kayfa noon shizuha nan lañ koy yëkkatee su ma nag suhaa ñu wadda ko laxman yàpp falama tabayyana ba biree la woo ñeel usayru nag qaala mu ne aalamu xam naa ne anna laa yàlla kat qadirun aja attan laa ala kulli shay'in ci lépp la yenteelu ibrahima itam mosoon naa wax yàlla yàlla nan ngay dekkalee ku dee yàlla ne kaw téef ibrahima yow mi may yónni ngay sama xarit ma def la ndëgër laay ndekki yi itam gëmoo dekki mu ne a kay gëm naa wante noo bëgg lu ma teg sama loxo ba mu wóor ma ndax loo fekkee gis ko moom dana wuuteeg lu ñu la nettali yàlla ne ko jëlal ñeenti picc saw yi day jéem a toppatoo turu picc yàgg yooyu naan jël na boo amee seete mu nga naan ay taawus ak ay ñoomin baaxaañ ak ay nangam ak nangam ñeenti picc rek la alquran wax soo leen reyee suqi leen doget ko jaxasal yàpp yi ba mu jaxasoo tibbal teg fale tibb teg fale ba muy ñeenti cër nga ñëw toog nga woo leen ba xam Ibrahima def noonu su ne baaxañ am lu jóge fii am lu jóge fale lu jóge fale composé wu daje nekk baaxañ taxaw ci kanamam mu ne jàmb wooye jàmb jóg am lu jóge fu nekk composé wu taxaw ci kanam mu ne ko nakam mu ne léegi wóor na ma ne yaa am kàttan yaa xaral loolu it day bëggu ñun ñëpp am yaqiin ci ne yàlla day dekkal moo tax mu ne wa id qaala ba waxee ibrahima ne rabbi yàlla ari ni wan ma kayfa tuxyi naka ngay dundal yàlla mawta way deeye qaala mu ne ko awalam tuumin ndax yiwit gëmuloo qaala mu ne bala aha kay walakin waaye li yatma inna ngir dal qalbi sama xol qaala mu ne ko fa xus jàppal arbaatan ñeent min at-tayri ci picc yi fa surhunna mujjal leen ilayki jëm ci yow su ma jël defal ala kulli jabalin bépp montagne bépp doj minun ci jus an ab xaaj su ma udoo na nga woo leen nga gis yaati nak ñu dikkal la saa yan mbir moom ñuy dox ak seeni tànk mu ne waalam xamal ne anna laa yàlla azizun kon ku not ci kattanam la xakimun yàlla ku xaral la nee na bàyyi na loolu ma ngi ci joxe ci yoonu yàlla da nga saraxe benn dërëm éy na jëna mu rafetee yàlla di ko fulande di ko yokk di ko yokk ba yowmal qiyaam bu ñu lay fay ne yaa saraxe woon lii day bari ba jaaxal la nee na loolu jarul mu di la jaaxal ndax yàlla boo seetee benn péppi dugub nga ji ko mu sax ba mu saxee génn gàncax gàncax boobu màgg jebbi seqi jebbi ba nekk fukki gattax gattax bu nekk daldi focci wenn gub gub woowu def téeméer muy juróom ñaari téeméer te yow kat benn pepp rek nga jiwoon yàlla mi mën a def loolu di la ko won xamal ne mën naa fulande jëf di ko fayee nu ko neex mu ne waaye seen sarax bu leen ko yàq ci ñaax ñaaxe mooy def dara gis ko donte ko nag man nanga bu ma ko dimbaliwutoon de nangam ak ki nangam wala def ndax nit ñi gis kook ndax ñu ne moo tabeek moo mën a joxe jëpp jëf jooy jëf te yàlla taxut yàlla ne du am benn njëriñ wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtigaa wajhi rabbil a'la mu ne booy jëf nag ngir njistalu yaa ngi mel ni wenn doj doj woowu ñuy tiimee xeer wi ñuy tiimee nga xam ne dafa rattax soo ko tooyalan ba mu tooy xépp nga fëlëm fëlëm ko ci beeñ bi ba beeñ bi taq ci ba gisatoo ko nga bàyyi ko ci bitti nag mu ne bu taw ñëwee bu tawtee waame ñëw day seramiku da ngay xool ne xeer wa dara nekkatu ci loolu mooy li muy lépp mooy jëf joo xam ne danga koy jëf te yàlla taxut coono ba nga ca def yépp yowmal qiyaam danaan dàndang doo am dara moo tax mu ne masalu maa yunfiquun misaalam na ñuy dundalee am waalum seen alal fi sabilillah ka masali xabbatin mu ngi mel ni aw pepp anbatat wu saxal na sabaa sanabil juróom-ñaari gub fii kulli sumbulatin bépp gub nag miatu xabbatin téeméeri pepp ngi ci wallahu yàlla yu daaifu day fulande li man yashaaw ku ko neex wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alimun ku xam la aarifoo ne ne yàlla ku yaatu la mooy dafa labal lépp rek moo tax ñoom dañoo naan kenn la waaye du lenn ndax waasiun la alladina ñi nga xam ne yunfiquuna ñooy dundale am wàllum seen alal fi sabilillah ci yoonu yàlla summa laa yutbiuun du ñu tofal ma anfaqu lu ñu dundale man nan genn ñaxel wala azan du caageen genn lor lawum ñe leen ajurum seen yoolu ind rabbim fa seen borom wala xawfun déet ay ragal alayhim ci ñoom wala hum dinum yaxzanoona ñuy tiit amoo loo joxe nga wax lu baax rek xawlun wax day maarufun ju ñu xam ju baax wa maxfiratun ak jéggale ci ku la tooñ xayrun moo gën min sadaqatin sarax boo xam ne yett boo da koy tofal asan ay lor wallahu yàlla ganiyun ku giijal la ku doylu la xalimun ku lebet la yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëmal quran laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seeni sarax bil manni ci ñaxe wal aza ak i lor këllazi mel ni ki nga xam ne yunfiqu day dundale maaloo alalam ria annaasi ngir ñi sal ak nit ñi wala yominu gëmut billaahi ci yàlla wal yow mi ak bis alaaxiri bu daay ji mujj fa masaluhu misaalam kooku daal ka masali safawaani mu ngi mel ni aw xeer wu tëx amul bën bën ale yi nekk ci kawam turaabun suuf fa asaaboo jot ko waabilun waame fa tarakahu mu bàyyi ko sal dan mu ne dandang laa yaqdiruun du ñu àttan ala shay'in ci dara maa kasaba lu ñu fàggu wallaahu yàlla yaa di du jubal alqawma nit ñi alkaafiriin ñi di way wet joxe na ngir yàlla mu ne masalu lazina misaalam ñi nga xam ne yunfiquun dañuy joxe am wàllum seeni alal ibtigaa mardaati lay ngir sàkku ngërëmal yàlla wa tasbitan ak bëgg gëm ga ñu gëm yàlla bay joxe loolu saxal leen minaan fisum seen bopp loola ka masali jannatin mu ngi mel ni tool bi rabwatin bu nekk ciw tund asaabaha jot ku waabilun waame faatat mu joxe uklaa meññetam ma jeex fay di ñaari kem tool bu nekk ci tund wu nangu mbay mu tooy xëpp mu ji fa bay ko mu meññ ba indi lu ëpp la mu daan indi joxe ngir yàlla noonu la mel fay lam yu sibaa bu ko jotut waa bi leen waame fatalun bandent mooy taw bu ndaw wallaahu yàlla basur naa ji xam ne bi maa taamaluun ci la dinañu def aya waddu ndax dina mébét aadakum kenn ci yéen an takuna di nekk law ñel ko janatun tool min naxilin ci tàndarma wa anabin ak raisin tajri di daw min taatiya ci suufam alanhaar yool yi yent law ñel ko fiyaa ci tool ba min kulli tamaraat bépp meññet fa asaabahu jot ko alkibarug màggat wa law ñeel na ko duriyatun ay doom doafa yu doyadi fa asaabaha jot tool ba isaarun ca laweer fii yi nekk na ca moom naarun safara faxtaraqat mu lakk am tool di ko liggéey di ko dundee am ay doom màggaguñ mën la ca remplacer far ngelaw ñëw wowal ko safara ñëw lakk ko rek dootu jote meññ ba say doom di ci jëriñ ndax kenn bëgg na ko déedéet jëf te yàlla taxul mu ne loolu rek la nga cay sonn lool mu mujj rek yàqu kadalika nii yu bay ni law lay biri yàlla kum ñeen leen alaayaati alquran laallakum ndax yéen te tafakkaroon na ngeen di xalaat xeetu li ñuy joxeeg melokaan wa mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran xajaas yi ne na saxaaba yi dañ daan def buñ ne saraxe leen ku nekk jëm ca sa tàndarma ja tànn aj watoog naj watoog yu baax jëpp moom ko jël nag ndulla beeg belit beeg bu kenn soxlawut nga koy def sarax yàlla ne déedéet li ngeen bëggut mayit bëgguma ko anfiqu na ngeen dundale min tayibaati ma ci way teey la nga xam ne kasabtum fàggu ngeen ko li ngeen fàggu la ngeen ci gën a bëgg ngeen di joxe wa mimma axrajna ak la ñu génnee lakum ñeen leen min al ardi ci suuf si kooku mooy buntum azak loolu moo tax ulama sunna lépp lu ñu bay muy meññ ñu di ko lekk rek ñu génnee ko azak dootuñ déglu sax fuqaaw yi naan mimma yu daxar ak mimma laa yu daxar ak mu nekk xuut mu ñàkk nekk xuut seen yoon nekku ci ndax bu fekkee ne fuqaaw yi dañu xalaat ne fokk loolu nga bay na na mën a nekk ab dund amul lenn lu ñu bay moom kenn mu mën a nekk ab dund foog nga boole ci leneen yu dugub ji boo toggee laax bi far nga wutim soow nga wuti jën nga wuti yàpp buy ñebbe noona boo ko bëggee dundee moom kenn du sotti nee nañu ñoom fuqaaw yi fokk na nekk lu ñu war a mën a denc boobu boobu rekk lépp yàqu na ndax léegi lépp lañ mën a denc jën sax dañ koy denc léegi moo tax ñu ne ñoom lépp lu ñu bay mu ñor ñu di ko lekk rek dañ koy génnee asaka ndax yàlla moo ne wa mimma axrajna lakum la ñu leen génneel min al ard ci suuf su fekkee da nga ne min mi li tabiidi kon lenn ci li génn ci suuf ñu ne waaw d'accord nañ ci ndax dugub ne li nga bay yépp a ngay génnee lenn nga cay génn ab ay fukkeel la wala ñeenteelu fukkeel wala te yemooma bu leen jublu nag alxabisa lu bon la minu ci moom tunfiquuna ngeen di dundale ko bu leen jël nag li gën a yées ngeen di ko joxe wala sum ak li nga xam ne déedéet yéen bi aaxidihi ngeen di way jàpp ko di ko jël illa an tuxmidu lu mooy ngeen gëmm fii ci lool loo xam ne soxla woo soxlaatoo ko nag jarul saraxe yàlla it bëggut moo tax bu ne yàlla xeebul yéemul xeeb na moos am lu bari joxe tuuti xeeb na la am lu néew joxe ca yéem nañ la moo tax mu neen bu leen joxe li ngeen bëggut li ngeen bëgg nag bu ngeen ko joxe nag loolu yéemu na waalamu xam leen ne ana laa yàlla ganiyun yàlla ku gii jàlla xamidun kuñ sant la cheytaan nag yaidukum da leen di dër al faqre ñàkk boo joxee mu jeex nga ñàkk wa yaamurukum mu leen di digal bil faxshaay ci lu bon wallaahu yàlla nag yaidukum moo leen di dëral maxfiratun njéggal minu ci moom wa fadlan ak ngëneel wallahu yàlla waasiun yàlla ku yaatu la alimun ku xam la wa man yóota ko joxeef na ko xikmata xam-xam faqad óotee joxeef na ko xayran aw yiwu kaccureen bu bari ndax du jeex waaye buñ la joxee alal joxuñ la dara ndax day jeex wala nga jeex ibnu abi talib waxoon na ne radina qismat aljabbaari fiina lana ilmun wa liljuhaali maalu lian almaala yafna an qaribin wal ilmu yabqa la yazal nee na ni ñu yàlla séddee ñun gërëm nañ jox nañu xam-xam jox ñeneen ñi alal alal day jeex xam-xam du jeex yaag moom ba yowmal qiyaama xatta bu ñu dekkee bu yàlla laaj ñaata ngeen def ca bàmmeel dañ leen fasalil adin laajal boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko mën a takk kon moom da ngay takkoog moom faw moo tax mu ne man wutiyal xikma wa man yuutal xikma faqad utiya xayran katiran wa ma yadakkaru du waaru nag ila ulul albaab lu may borom xel yu sell yi laysa aleyka hudaahum alxajaasi nee na asbaabu nusulam lu bari la bokkoon na ca mooy ñun bi yonent bi ne nañu saraxe dañ daan wax ne duñ sarax lu mooy ku gëm yàlla rek ku nekkut jullit duñ leen sarax ndax ñeneen ñooñu daal comme jéem nañ jéem ñu nekk jullit léegi duñ leen dimbale yàlla ne déet laysa alayka waru lahu daawum seenam njub yow kay dañ laa yónni rek nga jottali waaye doo responsable nag ci buñ bañee jub laysa alayka wu daawum walakin allah yàlla yaa di mooy jubal man yashaaw ku ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci yiw ah ah dama tëb kon dara waaw dama tëb tëb benn kii kooku ci àttey infaq la mu ne wa ma anfaqtum lu ngeen dundale min nafaqatin xeeti dund joxe aw nadartum wala ngeen nidar min nadrin fa inna laa yàlla yaalamu woo xam na ko wa maa li daalimiin ñeer way tooñ min ansaari ñi leen dimbali in tubdoo su ngeen feeñalee sadaqaati sarax yi fa nicma hiya baax na laa moom nga nëbb sab sarax kenn du ko gis jox ko ki nga ko war a jox loolu di baax na nga feeñal ko di ko joxe ñu gis ne yaa ngi koy joxe baax na de waaye wayin tux fu waa su ngeen ko nëbboon wa tuutuwaa ngeen jox ko alfuqaraa way aajo ya fa waloolu xayrun moo gën lakkum ñeel leen xam nga as gor boo ko joxee rek mu rus kon nag bokk bu ko jox ci mbooloo na nga ko nëbb wa yukaffiru day kafaaraankum ci yéen min sayaatikum seen i bakkaar loolu da koy far wallaahu yàlla xabirun ku dañ kumpa la li ma taamaloon ci la da ngeen def ko ñooñu nag laysa alayka waru lahu daawum seenam njub walakin allah yàlla yaa di mooy jubal man yashaaw ku ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci alal fa li anfusikum ñeel na seen bopp yéen lañ koy fay wa ma tunfiqu ndéen ngeen di joxe illa ibtigaa wa ci lay lu may sàkku anam ak yàlla wa ma tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci alal yuwaffa dees na ko matal ilaykum ci yéen ëllëg wa antum te mbir moom yéen bu ñu leen di fay laa tudlamuun defu tooñ leen ba muy manqué ana ñan la ñuy war a jox yàlla indi na ay melokaan koo xam ne ci benn béréb la toog di jaar ci yoonu yàlla ba munta liggéey jox leen ko bu ko lekkee mu dagg koo xam ne ci benn béréb la toog di jàngale di jubbanti di woote jëme ci yàlla ba loolu tere na ko liggéey jox leen ko ak keneen ka mooy kan koo xam ne mënula tukki mënula jaay mënta jënd ndax dafa wàññeeku ci yaram xëy nay gëtam la xëy nay tànkam la xëy nay loxoom la jox leen ko mu ne ak kan ak ki nga xam ne buy kër kër yi itam day am na lu mu am waaye doyut ko de la mu am ci njaboot moo ëpp la muy am te du wër di yelwaan ndax doylu jox leen ko kana ca ñeenteel ñi nga xam ne ñàkk nañu ba boo xoolee jëmm ji rek xam ne ñàkk na yaram wa jeex na tàkk yére ya xotteeku na jox ko ka ca juróomeel te moo ci mujj mooy ki nga xam ne da ngay dëkk ak moom rek xam ne kii ku soxla la waaye kenn du ko gis muy génn di dem ci kenn di ko laaj mu ne ñii la alquran wax ne ñoom rek lañ war a jox ñu lekk ko mu dagan waaye ku mooy kii daal moo ko joxee bu ko lekkee du dagan moo tax mu ne lil fuqara way aajo waye alladina li nga xam ne uxsuru takkeef na leen fi sabila ci yoonu yàlla ba moo leen tere liggéey ak ñi nga xam ne laa yastatiuna mënuñu darban tukki filaar di ci suuf ak ñi nga xam ne yaxsabuhum dana joortoo leen aljaahilu ki réeree seen mbir agniyaa ne ñu oomal lañ mi ne taafuf gën la ñu fegu ci laaj ak ñi nga xam ne soo leen xoolee taarifuhum nga xammi leen bi simaahum ci màndargam ñàkk ma ak ñi nga xam ne ñoom laa yasaluuna du ñu laaj mukk naa sa nit ña ilxaafan ngir sonal leen ñii la ñuy jox waaye duur ñu mooy ñii wa ma tunfiqu lu ngeen joxe nag min xayrin ci yiw fa inna laa yàlla alimun ko xam la bii ci moom waaye borom alal yi nag ñoom borom barke ni ñoom ku mag rek la ñuy jox ndax bëgg mu nekk lu ñuy wax waaye ñii seen yoon nekku ci tax na ba bu kilifa demee ci borom alal bu ko laajee mu jox ko lu bare bare bare bare ku néew doole nag bu demee mu jox ko tuuti
wala du ko mën a gis wa ma tunfiqu lu ngeen dundale min xeyrin ci alal fa inna la yàlla li mun ko xam la bii ci loolu ladina ñi nga xam ne yunfiquuna ni ngay dundale ambaalum seen alal ya bi leyli ci guddi wa naareeg bëccëg siran ci lu nëbbu wa alaniyatan ak lu feeñ fa lahum ñeel na leen ajurum seen yool en rabbim fa seen borom wala xawfun di ragal alim ci ñoom wala hum den ñoom yaxzanoona ñuy tiit comme mu ngi tudd alal nag dafa am lu lënkoo alal muy riba riba dafa lënkoo ak alal mooy dërëm ñaari dërëm ma lebal la téeméer bu weer wi dee nga jox ma téeméer ak lu ci mën a tegu rek boobu mooy bi ci gën a feeñ mu ne alladina ñi nga xam ne yaakuluna ñooy lekk riba laa yaquumuun duñu taxaw mukk ëllëg di dekki yowmal qiyaam illa kama yaquum naka lay taxawee di dekki lasi ki nga xam ne yataxabatuhu dana dajjetoog moom seytaan minal masi ci laal ko day mel ni ku ku jinne jàpp ku saddu na muy cadda caddi lekkati riba buy dekki noonu lay mel daalika loolu bi annahum ñoom qaala wax nañu innamal bayu jaay daal mislu riba njaay daal moog riba benn la ndax munu caa ñàkk waa xalla fekk nag daganal allahu yàlla al bayaa njaay wa xarama xaraamal na riba kon yéen nit ñi fa man jaahu ku dikkal na ko mawidatun ak waar min rabbi ci borom xamu ko woon mu xam ko léegi na bàyyi fantaha mu daytalu bàyyi ko fa law ñen na ko ma salafa lam njëkkoon a liggéey na continuer ca lool alal jooje ñu ne ah alal jëm njëkkoon liggéey muy riba nag bu tuubee nga ne baax na nu ñu kooku fu mu jëm mu ne bàyyi la yàlla waa am roo mbiram illaa jëm na ci yàlla waaye ku xam riba ba sottal dellu ca wa man aada ku dellu na fa ulaayika ñooñu asxaabu naar ñooy boromi safara hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fiyaa ca safara yam xaqu dana gotti laahu yàlla riba wa yur bii te muy màggal a sadaqaati ay sarax di ko dolli wallaahu yàlla laa yuxibu du fay kulla kafaarin bépp weddi waa koon asimin ku daay ji bàkkaar inna ladina naka ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wa amiloo ñu jëf asaleeti farata yeeg naafile yi waa xaamoo ñu taxawal salaatu julli waatoo ñu joxe zakaati asaka lahum ñeel na leen ajrum seen yool in rabbim fa seen borom wala xawfun déet ragal alim ci ñoom wala am den ñoom yaxsanoona ñuy tiit yaa ayuha alladina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran ittaqu ragal leen lax yàlla wa zoro bàyyi leen ma baqiya la des na min riba in kuntum dem nekk ngeen muminin di way gëm yàlla fa in lam tafaaloo su ngeen ko defut fa zanoo xam leen yëg leen bi xarbin nara am ab xeex seen diggante mi ne laay bu jógee ci yàlla jëm ci yéen wa rasul ak yónintam xam leen léegi ne kon xeex bu jógee ci yàlla ak ab yónintam ngi leen di xaar waaye in tubtum su ngeen tuubee nag falakum ñeel na ru'uusu amwaalikum seen capital ba bopp alal ja yéen a ko moom comme tum ngeen bàyyi la ca doon tegu sa capital jël ko ndax kat laa tadlimuun du ngeen tooñ wala tudlamuun defut tooñ leen bu leen tooñ ba lekk riba duñ leen tooñ it ba xañ la sa capital bi nga tàmbalewul wayin kaana bu nekk nag ki doon def riba te bëgg koo bàyyi nag zoo usratin di borom ak ñàkk ba amaan na bu bàyyi riba dooleem néew fa nadratu naqaar ila maysaratin ba ci oomal waaye na ko bàyyi na muñ rek yàlla mën na ko jox mu oomal maanaam bénéfice bu jógee ci riba te waa ji dafa ñàkk yorul leneen ah na ci téyewaale di xaar bu oomalee mu bàyyi ko waanta saddaqu waaye su ngeen génnee woon riba bi day saraxe ko xayrun moo gën lakum ñeel leen loolu moo tax nit ñi dañuy laaj si ku am compte ci banque bi banque bi tegal ko ci xaalis ndax dana dagan ma ne jëf ji day daganut waaye amuloo ci pexe ndax benn banque bu du def riba amu fi banque islamique yi fi ubbi woon yëpp daanu nañ ndax mënul sotti kon banque yëpp riba la la ñuy liggéeyee ndax juif yi yahudi ñoo ko fi samp
mbir mu wut alal moom yahud yi ñoo ko sampéenise waaye boo toogee nag amoon fu fukki junne nga dem ñu ne teg na benn junne banque bi ne moo la ko tegal ulamaaw yi wax nañ ci wax yu bari waaye la ci gën a wér mooy loola dara nekku ci ndax la la ci dugal mooy amoo beneen banque te boo ko denc ci kër gi ñu sàcc ko kon danga loru beneen ba nag moo di ne lañ la tegal buy riba lañ ca tànn daal mooy nga génnee ko ñàkk ko def ci sa alal nga sarax ko koy néew doole yi moo tax yàlla ne wa an tasaddaqu xayrun lakum fa nadiratun ila maysara xaaral ci riba boobu ci tegu di xaar boo amee loo jàpp nga bàyyi ko waaye nag soo génne woon riba baag la ca tegu day saraxe ko xayrun lakum in kuntum dim nekk ngeen taala mën a di xam loolu mu ne du ko jël ndax riba la moo lu ngeen ci xam ma ne ko lam dafa gën a bon ndax du ko jël ndax riba la banque boobu def riba ma ngi koy yokkal doole moo tax mu bàyyee ko fa mënoon na koo jël jox ko way néew doole ya ndax yàlla daf ne wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamun jéem a enrichir banque bi def riba nga koy yokkal doole miskin yi di taxawaalu ñu koy baaxul wa taqu ragal leen yow man bés boo xam ne turja'uuna dees na delloo leen fii ci moom ilalaay jëm ci yàlla su matu wa faa toppadee fi matal kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat lu mu faggu uhum te ñoom laa yudlamuuna deefu tooñ leen ulamaawul qiraa ne nañ aaya bii mu mujj wàcc ci alquran yëpp yëpp yëpp wattaqu yawman turjacuuna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun mu mujj wàcc dara fali waaye boo ko seetee ndeke yowmal qiyaam ku ne loo liggéey rek ngay am kenn du defal kenn dara ndax tuwaffa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun te bii moo mujj wàcc ci téere bi donte maay dama mujj wàcce comme saar wu complet donte alyawma akmaltu lakum diinakum ma mujj wàcce comme atte waaye bii ma mujj wàcce comme aaya bay na loolu ma ngi ci aaya ju gudd ji alquran yépp aaya bi moo ci gën a gudd